Birama Ngoone Birama Kumba Njaañ Birama Sob Tene Banama Faxameri fii mooy kër bisik boo déggee kër bisik fii la fii fii la bisik yi di soqee ko ñu di leen fal di leen fal di leen fal seen juróom-ñaari maam ñu fal leen ba bisik baa ngi nii bi ñu mujj a fal toog muy Alaaji Gilaaji Ture bisik bi ñu mujj nii modanak jari amadak jam rakki cimɓeelo jara un to jeemeñira yasin ta birema ngoni birema coumba diagne birema softene ban ama faxamberi ama loɓe selɓe ñaay borom jakarlo tutak junjung bu jibe buura feeñ sadimi ci cuucuun borom junjung bi ci njoob seen mama daanu ca teeni yalam le bali poxomo xeye taggawarga kan ñamawu ko jege modanak jayre yéen seen mama salo fos nu kayit kayit lu ci ñuul rek loxo ko ca def alaaji bisik ture yal na nga yàgg ci suñ kanam ta ñu wala gay na a koy mbaloor yey alaaji gilaajo ture ta ñu wala gay na a koy mbaloor yey alaaji gilaajo ture e bu bu leen ko toppandoo e ñay du maase gele heem alaaji gilaajo ture jangi baaxum jang baax boy ngot ka siriin doonay alaaji gilaajo ture alaajo gilaajo bisik bi siiney alaajo gilaajo ture bisik ay buura and buurak jara buurak bisik ñooy and unto njeeme njira yaasin taa bireema ngooni bireema kuba jaaj bireema softe ndeban ama faxa mberi borom nak sooma lobe selbe njaay borom jakarloo tutak junjung bunji be bura fi hen ana bayi Cheikh Touré yey ye liggéey hi ndey do hom gilaajo Touré ani hey hey nare hey gilaajo Touré nuyu naa la doomi ñay bu dey hey mbalore njega fe cageew taala mu cageew bu coow la yagi moo ta nar yanga jila seme alaaji gilaajo Touré baye suxtire mot nga li nga doonay alaaji gilaajo Touré mot nga li nga doonay yow la ñu yaakaar ci siin yow yaa suñu yaakaar siin yaa doonu kër bisik Touré amalobe bisik la commandant bisik la biram an bisik la ama faxa bisik la demba maaraan bisik la amalobe selbe bisik la yeey paate Touré bisik la moo daan jox lañ la li nga moomay alaaja gilaaja Ture moo daan jox lañ la li nga moomay alaaja gilaaja Ture magi may sa Ture yeey naar yaa nga njilaasi heem alaaja gilaaja Ture ana baayi ndey faatu yeey ana baayi aysatu Ture nirowuloog ba doole bokku leen jëfi lay may sa Ture may sa Ture iba Ture yeey taagoor we mbog na baay may sa Ture kaam yong na goor we bokk na baayay Maysa Touré Iba Touré ama faxa mooy sa baayay Iba Touré ama faxa mooy sa baayay waaye biram ban mooy sa baay gaynde gaynde gaynde bogol mboom xam ngeen ne yàpp lay dunde naare gay iye modal maysa gaynde goorange naare gay iye maysa ture iye gaynde goorange yame gori ayu ture iye gaynde goorange maysa gay okonde ture modane gaynde goorange maysa gay iye bay tamsire gaynde goorange maysa gay iya gaynde gaynde bu jur jakere pol yabar nañu jame may sa gay bayi kumando fene gaynde gorange may sa gay bayi may sa ture ye gaynde gorange may sa gay may sa sama wayla ye gaynde gorange may sa gay ye bayi tamsire gaynde gorange may sa gay ondem kumbante ɓe goori bambim yongna ture ye gaynde goorange kon bambim yongolor ture ye gaynde goorange maysa gay ye narwali ye gaynde goorange maysa gay na donu bisig yicci sino ture ye gaynde goorange maysa kaleen ñu magal buuri siino ture ye gaynde goorange nga ref na taaw ando nga yaf kirang ture sundogoy pate ture ando nga ma pate ture ye sori wulin buur ando nga yaf kirang ture sundog ma pate ture ando nga ye jangi baax boy ngot kasiren don ando nga yaf kirang ture sundog ma pate ture ando ama pate ture ye maisa moisa bay ando nga yaf kirang ture sundog ma pate ture ando nga yaf ye moda nariya nga njilasem ando nga yaf kirang ture sundog ma pate ture ando nga yaf yembok vap ne kada banyasai ando nga yaf kirang ture sundog eh, we ture ando nga yaf kirang iago kam gimonar nomad ando nga yaf ture sundog eh, we nar nomad ando nga nga yaf ture gori ayu ture ya woy yaa ko moom nga yaf kirang ture goy tamsir ture ando iye isa mooy sa yaay ando nga yaf kirang ture goy tamsir ture ando tamsir ture ya sori wuleen buur ando nga yaf kirang ture ngay tam see ture ano nga yaf kirang iye jangi baax boy ngot ka siri ndoon ando nga yaftirang ture nga itam si ture ando iye seex ture kuma deb mooy sa baay ando nga yafkirang ture nga itam si ando seex ture kaam loola bambi njogoloor ando nga yafkirang ture ngay neexoona ando Cheikh loola ba mi njongoloor ando nga yaf kirang Touré ando Yeesu Touré ka fa po tew masaay ando nga yaf kirang Touré ando iye Kumba Touré ye liggéeyi ndey doom ando nga yaf kirang Touré ando Biram Touré Adama mooy sa yaay nga yaf kirang Touré no goy Biram Touré ano Biram Touré fo batof ne patar ano nga yaf kirang Touré no goy Biram ma ano iye Biram Touré ne tando tan nokin ano nga nga yaf kirang Touré no goy Biram Touré ano Biram Kumba dem Adama mooy sa yaay ano nga yaf kirang ture weet kii ma may sa ture fo batum ne jaareex ano nga yaf kirang ture may sa ture ne te may sa ture naar ano na yaf ture naar ano eh, may sa fa ndeb gila jom mooy sa baay ano nga yaf kirang ture eh, goy may sa ture ano nga ye may ture gila jom mooy sa baay ano nga yaf kirang ture na eh, yaf goy may sa ano nga yaf kirang waay asalaamaaleykum waaleykum man day may sa may sa ture laa tudd bés bu day xam nga ñu ngi ci trente sixième édition donc fa fanweeri at ak juróom benn gi ni ñu koy def juróom ñeent sax laay wax parce am na ñaari at yoo xam ne yi Covid bu ma tax defuñu ko donc lu yàgg la donc préparation la boo xam ne bi tàmm nañ ko xanaa buñ di ñëwee rek nga jël buum ci mboy mboy ga jaar fi ñu doon jaar seet ñi nga xam ne ñoo ci doon jàpp ñu jàpp ci woo waa siin yëpp ñu jàpp ci parce que événement wu siin siin yëpp événement wu siin la kon dañu laaj seen si ne ñoom tamit mu jàpp ci mu mucc ayib. leçon yi bari na parce que xam nga te période boobu buur boo xam ne woon du woon jullit du woon murit mais doonoon ceddo dans le sens noble du terme mooy ku am ay valeur di jom de fit de ngor xam dëgg dox ci dëgg di wax ci dëgg moo nekkoon ceddo donc ceddo c'était pas péjoratif léegi la péjoratif léegi lañ koy jéem a péjoré mais c'était pas péjoratif donc ku mel noonu bu jógee dem di seedeel koo xam ne kii ci diine la nekk diine l'islam dafay véhiculer ay valeur mooy euh, dëgg la bëgg yàlla sax dëgg la bëgg xam nga euh, aada diine da ko fa fekk mu fekk fi aada yu bari am yu baax ak yu bon yu bon yam yu bon yam mu xeex leen yu baax yi mu dëgëral leen te dëgg ci yu baax yi la bokkoon moom woon aada jooju donc dëgg googu lañuy ñuy bëgg a woon xale yi tey ci bés bi valeur la boo xam ne bés une valeur fondamentale wax ne lu mu metti metti metti lu mu tàng tàng tàng dëgg dëggay mujj kon dala wax dëgg te xam ne suba dëgg la lay laaj même bu bokkul péete dëgg lañ dëgg moom la yàlla bëgg dëgg mooy euh, jikkoy nit ku baax nit ku bon mooy dul wax la ca gannaaw dëgg fitt di jikko joo xam ne dañ koo naw ki nit am fitt te doob dof nag parce que dof mooy sóoru loo xam ne li wóor na ko ne xaru la bu amee fit dangay boole nekk am fit ba pare nekk ba nga nekk dof mu yoroon qualité boobu aussi itam moo tax mu mënoon a jóge fii dem ca borom ndar nga xam ne boobu temps kenn ñemoo ko borom ndar wax jëme góos mu wax jëme droite ba pare dëggu ne lii ma wax ni man def ma wóor ne mooy li am mooy Serigne Touba talul li ngeen di wax kee ma gis fee yàlla dong yàlla lu moo ko ñor te teg naa ci sama mantu bi nga xam ne mooy mantu nguuru siin hmm? bu fekkee ne safaan wa am na ngeen folli ma def ci ma lu leen neex moo indi seede boobu kooku itam borom fit mooy def loolu te wax ko ki siin yëpp nag te ba mu demee indi seede dafa na ak waa siin yëpp képp koo xam ne yor nga doom ba tànk siin rek ànd nga ak moom ñu tax ñëpp jaraaf bisik géwél yeeg farajunjung yeeg far yeeg ñëpp ànd na moom salmankoor yi ñëpp ànd na moom siin yëpp dal ku fi nekk ku fi am tànk rek ànd nga ak moom keroog taxaw mu seede nga ànd ak moom ki seede bi xam ne siin lay waxal waxalul moom kenn mi ngi mel ni dafa mel ni benn triangle la diggante Serigne Touba Bour Sine ak tubaab bi nga xam ne daanaka ku ci nekk intérêt yi nga xam ne tey moom moo la moom nga incarné moom nga bëgg dafa bokkut ak sa morom tey bu demee ba ci jamono joo xamante ni tey euh, ñun ñëpp suñu intérêt mooy Sénégal développé mais ñu gis gi maam géewu politique bi pëccëxoo trop mel ni ku dul koo bokkul parti sa noonu la tey ban message ngay joxe ci ci waa réew ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo lay dégg ngir ñu mën a jël ci Serigne Touba mbind mën a jël ci Boussine mbind ñaar ñi nga xam ne bokkuñu intérêt mais ñoo bokk ay valeur ban message nga ciy joxe Euh, aada aada lu yàgg la aada ak cosaan dafa yàgg diine ñoo fekk ko fi ba mu ko fi fekkee dafa jël aada ju baax ji dëgëral ko jël aada ju bon ji xeex ko ba mu génn ki nit ñi loolu moo tax bu sëñ Tuubaa lëkkaloo ak buur siin dinañ am diine am aada ju baax loolu lañu bëgg woon xale yi waaw ne leen bu ngeen jàppee ki ñaar ñi jàpp seen diine muy diine ji nga xam ne moom la ñu bokk ñu ne muy diine lislaam ngeen jàpp ci li muy jàngale loolu rek la aada di jàngale na doon nag aada gu baax gi aada gu baax googu la Buur Sine Coumba Ndofféne yoroon di ko wone moo tax bu lëkkalikoo bu lëkkaloo ak euh, diine bénéfice rek lay doon ci xale yi tey kon pëccoxo bi ngay gis ni ku ci bëgg a duggati di wax wax gu ñaaw ak di saagante di wuru jag boo xalaatee seen tuba xa lamu la mu dox ak la mu wax ci réew mi xalaat bu seen ko mëndoo fen la mu def ak la mu wax ci réew mi doo ci dugg loolu la ñu bëgg woon xale yi mel ni yow ñi nga bokk ci waa cellule communication euh, nga gis ni maanaam valeurs yi c'est intéressant jeunesse bi soxla nañ ko mais suñu système éducatif leneen lañ fekk ay ñeneen lañ won euh, est-ce que yéen a ngi dox ay jéego yoo xamante ni tey a a suñu maam yi amee ñu fexe mu dugg système éducatif wala boog ay méthodologie yoo xam ne dinañ ko mën a permettre ba xale yi mën ko jàng. pour euh, ñuy jàngal li nekk ñun dañoo tàmbale que ñuy jàngal ki li ñuy lakk. xam nga xeex boobu dégg nañ ko dégg koy xeex ci biir Sénégal bëgg doon jàngal ci li ñuy làkk dinañ ñu jàngal li fi maam yi ba parce que am na loo xam ne kay mënu ko làkk tubaab làkk bi gisul lañ ko mën a làkk kon nag nous sommes conscients que système système bi dafa war a soppeeku wala que ñu ñuy jàngal ay cosaanu Europe ak cosaanu Gaulois ak yu kenn xamul. dañoo war a dellu si di ñu jàngal su ko cosaanu sunum réew te war ko nag di ci jàngale ci lakk yi ñuy làkk codifié ko codifié na ngi sax juróom-benn langue national di ki jàngale di ci wax comme ça ñu mën a jàngale li nga xam moom lañ doon loolu c'est une voie et c'est à mon avis la seule voie qui sauvera le Sénégal mais tant que ñu ngi jéggaan ah ci fànn yëpp nag dina lu des li des mooy li nga mënu ko jàngale xam nga jom ak fit ak ngor kenn mënu ko jàngale dañ koy donn dañ koy doon dañ ko fi lañ ko fekk dañ ñu ko war a xamle rek te du ko xam ne nag kenn demee woon te xamle kenn mu demee woon dafa nga xamle ko ci lakk bi ñu ko doon def ñu ko jëfe moo tax il faut nga soppi façon gu jàngale bi xanaa di sant rek sant yàlla julli ci yonent bi wax ne lu ñuy def dafa fanweeri at ak juróom-benn te at mën na muy gën di avancé yàlla moo ko teg loxoom ren sax metti woon na trop parce que xam nga ne dafa am ay événement yu am Sénégal ba ñëpp yaakaaroon na Sénégal dina tàbbi ci guut yàlla def ndax mu sedd guy ñu fol président bu bees boo xam ne ci ku jege la jóge mu ñëw toog palaasam war a xool nag saytu lim fi fekk ce qui fait que euh, jéego yi ñu la doon teg yi fi nekkoon ñoom balañ ko teg balañ ko teg dinañ ko xool moo tax ñun nguur nguur gi danañ jàpp bu baax a baax a baax ci màggal gi da danañ jàpp bu baax a baax ci fànn yëpp nag ren loolu nag manqué ñu parce que yéen dañuy soog a toog xara buñ leen nag. parce que dañuy soog a toog bind nañ leen kaay gu tontuñu nañu danañ seet luñ ci mën a def ñu def ko waaye ndimbal nga daan am fi mu nekk nii amaguñ ko waaye nag sant yàlla yàlla def na ba nga xam ne bi ay doomu siin substitué nañu et ça ça c'est bon exemple pour wane ne euh, balaa ngay compter ki jàmm nga compter sa bopp loolu tam bokk na ci li ñuy jàngale. balaa ngay compter gi jàmbur nga compter sa bopp ñun bañ demee ba xam ne fee du baax pour le moment xëy na nag année yi ñëw dina baaxaat ñun nañu ba ko ñëw suñu biir fépp fu doom si nekk ñu bind la seet si la nag au-delà de nos espérances ba tax lépp lu ñu doon def ci at yi passé ba ñu nguur gi jàppale daaw ñu laaj kenn def na lu ñu toll maa lu ko ëpp ren ji jooyu ñu fenn kon ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla mu jàpp lañu mu gën di jëm kanam rek parce que euh, patrimoine la pour Sine lu tax mu nekk patrimoine mooy ay buur bari nañ Sine Sénégal trop waaye benn buur dafay màggal muy buur Sine Coumba Ndoffène kon nag loolu ñu nañ ko war damo day tax mu am ci màggal mooy lam jëf ja jëf ku jëf am am lu rëy loolu moo tax ñu ne sant yàlla yaa yi du ñu bàyyi parce que kuy def lu baax ci askan wi yàlla di lay jàppale faw jërë ngeen jëf. waaw mbokk yi comme ni ko commencé ci suba ba tey eh, war ci bërëb yi nga xamante ni tey mooy eh, bërëb yi nekk fii ci Sine waaye tamit eh, ànd ak yi ay borom yi xam-xam yoo xamante ni depuis boobu ba tey yéen a ngi gis témoignage yi yéen a ngi gis histoire bi yéen a gis lépp tey nag ñu toog ak spécial muy suñu wayjur di suñu kilifa di suñu xarit di suñu maam di suñu lépp mu représenté aussi benn cër bu am solo fii ci Sine ñu koy wax bisik Euh, xam naa dina taxaw ci euh, bisik bi tuuti rek romance parce que yaakaar naa yàgg na ci waxtaan ci ay ay ay plateau yu bari waaye incha allah dinañ taxaw ci tomb yi nga xamante ni tey ren moom lan moom lañ jagleel lii nga xamante ni tey mooy màggalug Sine euh, bokk na ci maanaam témoignage bi avant et pendant et après bokk na ci aussi tamit maanaam relation yi nga xamante ni tey Sine amoon na ko ak waa Sénégal waaye bokk na ci jaraaf yi nga xamante ni amoon na ay taxawaay yu fasantiku te nekkoon ay taxawaay yu am solo kon li may def rek mooy dama leen di bàyyi mu nuyoo ak yéen incha allah rabbul alamin ñu dugg ci faram-fàcce yi. salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi santaat suñu borom jullit suñu bu baax a baax a baax daaw ci waxtu yi au même moment amoon nañ waxtaan wu demee nii yàlla may ñu te loolu lañ ko ñaanoon ren ji ñu dajayaat di waxtaanaat de la même chose. yal na yàlla def yal na yàlla def déwén ak jàmm incha allah ñu dajeyaat fii waxtaanee de la même chose ak leneen ak leneen itam léegi nag euh, depuis plus de dix ans depuis plus de dix ans chaque année à la veille du 7 juin c'est-à-dire la nuit di 6 au 7 dañu toog organiser li ñuy wax la journée de partage am na ay mbir yuy xew qui relève de l'histoire te ñëpp xamuñ ko ñu ne nañ waxtaane mbir yooyu te mbir yooyu yëpp autour de Bour Sine Coumba Ndeffène Fandène buur Sine Coumba Ndeffène ñaar lañ ñu Bour Sine Coumba Ndeffène Famaak nga xam ne moom moo doon xeex directement ak Faidherbe am na nag Bour Sine Coumba Ndeffène Fandène moom itam fekkewul xeex yooyu sax xeexul benn xeex wax dëgg yàlla waande témoignage la def témoignage la def en faveur de Xaadim Rasul sëñ bi dañ ko duural duural mooy nga waxal nit lu amul te wax ja demoon ba am solo lool lool lool lool bay débordé parce que bokkoon na ci débordement yi possible yi ñu exilé yaat ko Gabon buur Sine moo taxaw ne li ñuy waxal sëñ bi amul xam nga sax buur dafay fiir su fekkoon ne sëñ Touba ba mu jógee ay affaires jiyaada ko indi woon mbaa ut nguuri àddina bu fekkoon ne loolu rek man nguuri àddina laay wut dama seetaan bu koy am ci suma kaw te Sine ak Bawol xam nga dañ jege am na ñu frontière commune mu ne looloo tax ma ne leen kii li ñuy wax amul amul maag moom ñoo dëkk xam naa ne amul en gros loolu moo doon témoignage bi bañ ca jógee ci témoignage boobu nag dafay lu law parce que lu baax la ñu koy waxtaanee di ko waxtaanante ci biir nit ñi nangam nangam nangam xale yi war a xam mag ñi xamoon te fàtte ñu fàttali leen muy vraiment mbir mu baax a baax a baax a baax ren jii nag amaat nañ la même réunion ñu waxtaanee Buur Sine Coumba jaar-jaaram diggante bañ annoncé euh, dem bi ak bam demee ba bi muy dellu donc di 6 au 13 juin événement yi xew ci diggante boobu yëpp et qui concerne Sëñ Touba et concerne Bour Sine Coumba Ndoffène bëri nañ bëri nañ lool lool lool lool chaque fois war nañ cee mën a waxtaan waxtaan waaw du ay fan yu bëri yu bëree bëri yu tegloo bon mais aussi on se dit que. Euh, gis nga kii di Buur Sine Coumba Ndoffène euh, temam ba ndar pour témoigner dafa am ay conséquences parce que ba mu ciy jógee dafa bokkoo ak ñëpp dafa bokkoo ak ñëpp ñu fàttali nag ne ñu bëri jóge nañ ci biir réew mi ci gox goxaat yeeg yooyu. doon ut nguur fañ dëkk mu jafe leen nguur ga jafe leen ñu ñëw fii séjourné fi biñ fi jógee dellu yàlla yombale leen mbir yi lañ doon ut ñu am ko bon tax nag ay relation am Siin ak Kajoor am nañ relation jaare ci Lat Joor par exemple Lat Joor yaayam ngoone la tudd xam nga ngoone turi séeréer la ah, laatir laatir turi séeréer la lat joor laatir la boo déggee lat mooy laatir laatir ci ci <laughs> ci ci culture séeréer mooy ku juddu altiné ku juddu altiné waaw laatir altine la juddu diboor dimanche la juddu xemes xemes alxames lu judd loolu mooy enfin beneen histoire la tout ça quoi bon bu ñu jógee ci diggante relation yi diggante seen ak euh, avec Kayor am nañ aussi lu deme noonu diggante siin ak Bawol am nañ lu demee noonu diggante siin ak waalo xam nga ay dembooy ñëw na fi sax sargal si buur siin Aïda Mbodj ci boppam ñoo ne fii sargal si te noonu la demee diggante siin ak lébu yi c'est la même chose entre entre parenthèse man sama yaay ndooy la sant sama yaay ndooy la sant xam nga moom amul laam-laame buñ ne ndooy moom amul laam-laame buñ ne sekk mun nañ nekk nii nekk nii nekk na leen mais buñ ne ndooy moom ci lébu ga nga ko mun a ko mun a delloo donc ñu waxtaanee nag Assane Leye moo waxtaanee loolu. diggante relation yi Sine ak euh, yeneen royaume yu Sénégal yi waaw Assane Lay moo waxtaane loolu Mamadou Faye moo waxtaane jaar-jaar yi Coumba Ndoffène Fata nag moo waxtaane jëmale ko ci jaraaf yi et singulièrement jaraaf bi ñuy wax mbañ jugur seen mbañ jugur seen mbañ diminutif yi mbañik la mbañik jugu seen muy jaraaf bi nga xam ne moom moo àndoon ak Buur Sine Kumba Ndoofeen ñu dem ñu dem Saint-Louis loolu lañ fi waxtaane daal ci édition bi voilà. bon c'est difficile nag parce que lépp am importance c'est difficile nga bu a sekk bi bàyyi bële ak yooyu mais man li ma buggoon daanaka am naa ko ñu bëri buñ ne témoignage yu Bour Sine dañuy jàpp ni Bour Sine dafa xëyee fii sol rek dem ndar témoigner yi déedéet demewul noonu Bour Sine dafa am ñi muy waxtaanal dafa am ñi muy àndal li ñuy wax institution royale dans l'institution royale il y a Bour Sine il Jaraaf il Bisik il Farba il y a même Linguère te dañuy soxla sa xalaat ñu ne nag léegi alors ban li ma bëggoon mooy rek nit ñi xam ne bu Sine du kenn nit ah c'est une institution dafa am ñu muy àndal ñi muy waxtaanal ñi muy déggul balaa mooy def lu muy def rek fekk déggoo na ceeg nit ñi. la preuve bi mu ñibbisee ba ñëw amul kenn ku ci wala kenn ku. déedéet déedéet waaw waaw te xoolal. xali xali jaraaf bi biñ ne nañ dem Daaru Marnaan vérifier ji ndax am na ay armes secrètes ay mar ay armes cachées ou pas bañ jugut daf leen ne attention ñëli ceddu lañ comme ñun te dañu xereñ donc nañ dem fanaani parce que boo xaaree bi bët seen ngay soog jóge fii ne yaa ngay dem Daaru Marnaan mën ngaa dem fekk fa mbir mi am déjà kon nag nañ dem fanaani loolu xelam la woon pour le diir que Mbagne Diogur nit koo xam ne daf daf ko daf ko dafa ànd ak mayu yàlla daal waaw on peut le dire dafa ànd ak mayu yàlla te li ko mën a vérifier aussi en tout cas li mën a tax pas vérifier mais li mën a tax ñu gën koo foog mooy que moom ànd na ak ñetti buur te loolu lu jafe la lu jafe-jafe la Mbagne Diogur ànd na donc ak Kumba Ndóofeen ànd ak Mbàkke ànd na ak Mayekoor ñetti buur siin loolu nag waaw foog nga gudd fan ko pour mën a def loolu waaw. mu euh, am na leçon yu bari yuñ ci mën a jël ci xale yow en tant que éducateur yarkat yàgg ci système éducatif bi yàgg di jàngale nga gis ni xëy na loolu xaw naa ràpp ci suñu système éducatif bi lan lañ ci perte ñun en tant que sénégalais ak yan jéego lañu war a mën a def ba mën a corriger gap boobu nga xam ne am na. waaw société moom éducation moo ko amee éducation moo amee société te nit ñu daan yare bi ñu nekk xale man je me rappelle bien. am na façon boo xam ne ba may nekk tout tànk sañu ma koo wax sañu ma koo def daan naa rëccale nag def loo xam ne dina tax ñu dóor ma mais xam daf ma doon wóor aussi ne lu ma def te jaaduwul bu ma ñëwee dinañ ma dóor en tout cas dinañ ma jubbanti loolu nag moom dafa amatul kenn du jubbanti kenn xam nga dugub boo ko jiyee bu demee bay bu demee bay sax ni foog nga fa nga xam nga wàllar ñi xam nga dugub ji buy sax noonu juq lay def juq lay def il foog na nga élagué ko buddi yenn yëpp tuur tuur tuur nga buddi buddi buddi pour que ñett mbaa ñeent yi fay des mun a màgg correctment mais loolu nag nit buy màgg aussi noonu lay mel dafay jékki-jékki ak ay affaire yu bëree bëree bëri yow mii waajur bi nag yaay suqi lu bon yi yëpp yaay suqi sànni suqi sànni su ko defee lu baax la rek mooy mooy màgg te loolu nag moo amatul parce que bañ ne man jomb naa def lii jomb naa wax lii loola ba mu xewee ba léegi lux luxoor yi taxaw waaw man bu ma la gisul jomb naa sa gannaaw may wax lu dul noonu du dara jaraluma ko dara jaralu ma aussi may jóg di dandal alali jàmbur dara jaralu ma aussi may jóg di fenel nit di ko waxal loo xam ne newul noonu pour yàqal ko rek simplement yàq pour yàq loolu yooyu nag moo amatul nag yooyu moo amatul moo tax fi ñu toll nii c'est peut-être une chance sax ñëpp tey jii d'accord nañ ne jikko yi yàqu nañ ñëpp d'accord nañ ci loolu jikko yi yàqu nañ mais xoolal man yore sa ordinateur yore sa ordinateur mbaa boog sa benn Android téléphone di xas koo xam ne xamul sax ne yow yaa ngi koy xas bu dugg ci réseaux sociaux yi ñi xam ñi xam fii ñi xam fële yàq der daal comme on dit yàq der te loolu lu tax man may jóg di yàq deri jàmbur lu tax ba pare dina bëtu bu fekkoon ne sax dama jàkkaarloog moom ci biir mbooloo ma ne ko yow yaa def li yaa wax lii nangam nangam nit ñi dinañu àtte buñ xeexee itam nit ñi dinañu àtte te kenn du ma xeeb kenn du ma mais xeebeel gi mu ngi jóge ci ngay làqatu di wax nit ki loo xam ne du loolu c'est ça la lâcheté c'est ça la waaw seexu na euh, euh, léegi euh, dafa mel ni place bi nga xam ne moom nga toogee muy bisik képp ku ciy toog di am tur am sant maanaam da nga am koo xamante ni ci bisi gi la jiitu euh, moom mooy sa modèle kan mooy sa modèle ak lan jikko moo nekkoon ci moom pour nga mën ko jox xale yi mu jikko woo ko mu doon yóbbal ci màggal gi. de manière générale fii ku falu muy buur di bisik di lingeer di farba ku ci falu dinañ la laaj yow kan mooy sa référence kan nga dëppeel sa bopp nga tànn nag ci ñi la jiitu kenn ci ñoom koo xam ne am na ay jikko yoo xam ne neex nañ la ay jikko yu rafet yoo xam ne neex nañ la nga ne man maay diw man ba ma ca tolloo bañ ma neen yow nag yaay kan la fale ba pare dañ la naan yow nag yaay kan ma taxaw ne man may bisik moo daan bisik moo daan fa jayre mooy pourquoi parce que bisik moo daan xam nga bu ñu nee moo daan diminutif fi Muhammadan la Muhammadan waaw bu agsee ci séeréer yi dañ koy gàttal ne moo daan comme ni ñuy waxee mbañ jugur au lieu de mbañik ñu ne mbañ jugur dañuy gàttal séeréer day gàttal daal alors donc ma ne man may bisik moo daan parce que bisik moo daan jikkoom bokk na ci njàmbaaram bu ko daanoo ci xare ba bisik moo daan jàmba euh, euh, jikkoom bokkoon na ci ñeme dëgg bisim ba maandute bokkoon na ci ay jikkoom et cetera et ay jikko yu rafet rafet rafet du waxal nit lu newul waaye lu mu la waxal rek mu ngi ci yow waaw lu mu la waxal ne bu ne diw nii la mel boo vérifié fekk ko fa waaw te comme on dit <laughs> bu la nee suba ma rey la boo yeboo woo say mbokk ñu préparé dëj bi. donc waxam du teppeeku waaw euh, xanaa di leen ñaanal muy yow mi muy sa collègue bi sekk yal na yàlla feq seeni fan yal na yàlla yokk seen kàttan li ngeen bëgg yéen a ko xam yal na leen ko yàlla defal te mu jig leen lama ma cay teg mooy événement yu demee nii ñun am nañ ko mu ngi nii dans le Sine am nañ référence Buur Sine Kumba Ndoofeen parce que jikko yi ma la wax nii yëpp boo demee ci moom fekk ko fa donc ku nekk war na koo mën a jàpp comme référence euh, te du moom cest à fii ci affaire yi buur yi la rek mais buñ demee ci feneen ci yeneen domaines yi aussi da nga fay fekk ay jàmbaar yoo xam ne macha allah jëri jaraaf mbañ jugur ñu tudd ci ci édition bi moom itam ay jikko yu bëree bëree bëri yu rafet rafet rafet noo ko caractérisé te xel mu neex bokk na ci waaw xel mu neex bokk na ci waaw yooyu daal mooy soññ nag euh, nous sommes dans un état de droit dans une république où l'éducation est extrêmement importante parce que s'il n'y a pas d'éducation la démocratie ne marche pas waaw la démocratie ne marche pas donc nañ revenir reconsidérer la question de l'éducation l'éducation traditionnelle na dellu si nit ñu doon yare daaw ak euh, at yële passé ci siècle nañ seetaat ndax mënuñoo delloo si façon yooyu peut-être pas à cent pour cent peut-être pas intégralement mais au moins la nga xam ne moom moo doon substance ba mbir moo gis substance mooy la nekk ci biir la nekk xolam ñu génne ko dugalaat ko ci éducation yi parce que man li ñuy def nii man inspecteur de l'enseignement la donc euh, programme yi dama leen xam bu ñuy jàngalee par exemple moral temps yu njëkk yoo bu ñu ne dañuy jàngale moral maître bi day toog jàkkaarloog ay élèves ñu nettali histoire mu topp histoire bi nag topp ko nag day mujj histoire boobu dafay mujj jox ko leçon mun jàng xale yi leçon bii lañ tey moom la ñuy def moral mais léegi. xëy na nañ koy def sax mais liñ gën a kii mooy def ay image naan par exemple tour ndox ci mbedd baaxul ñu dessiné ñaari xale kii di tour ndox ci ci mbedd mi kenn ki dugg ci toilet yi ñu de ban comportement moo baax mettez une croix loolu daal man. mën na xàmmee image bi du ko dund. waaw du ko dund. ko dund image bi la na ko identifier. Oh, oh, waaw je parle à un enseignant d'ailleurs. jikko ji nekku ci waxoo ko fu muy jaar ba pratique ko waxoo ko erreur waxoo ko conséquences yi. waxoo ak xolam. waxoo ak xolam te moral. bët yi nga waxal waaw bët yi nga waxal. waaw waaw bët yi nga waxal waxoo ak xolam waaw te diine loolu la en tout cas diine l'islam bi noonu la euh, euh, euh, xol la ñuy waxal moo tax ñuy gëm. xol la ñuy waxal moo tax ñuy gëm parce que bu fekkoon ne boo gisee mbaa boo gisul doo gëm kon kenn ci ñun duggam gëm kenn ci ñun ah, ah, yow de gis nga yàlla <laughs> ah, mu ngi noonu de. bëgg naa bëgg saa de te pourtant gëm nga ko parce que sa xol lañ waxal waaw xol bi gis na ko de peut-être bët yee ko gisul bët yi sûrement gis ko mais xol bi moom gis na suñu borom waaw waaw foofu la foofu la mbir yi nekk daal voilà. la sàccoom bi Diop. RTS Kaolack day tax ñu gën ma ràññee waaw. ma gisee xale yi damay di yërëm ñoom waaye kilifa yi leen war a yilif ëllëg ñoom laay gën a yërëm waaw ndax ñooñu amul chance parce que booy yilif koo xam ne amul benn jikko bu rafet dangay sonn te ma kilifa yi léegi amul chance ndax xale yu dajal xamuñ cëru mag. xamu ci lu xamuñu sax seen wàll ci réew mi moo tax daal mu doy waar ñun nag xamuñu loolu daje tey bi nag dama bëgg gërëm d'abord Gallaajo parce que xamante ni lu yàgg yàgg yàgg te int ñu ngi ko introduire 2014 avant 2014 déjà amoon nañ suñu relation yàgg yàgg yàgg moo tax depuis 2014 lu xew rek def naan ma kat ñëwal ma sawari ñëw. ndax moom yàllaa ko def muy kilifa yàlla ko mu am xam-xam ba pare oyofal boppam neex a dëkkal ndax ñu bari bu ñu amee tuuti ndombo tànk rek dañ bëgg am ñu ñuy xeeb ak ñuy beddi moom nag bu ngeen toogee du nangu sax benn cër daf lay jox lépp ñu ko gërëm di ko sant jamono ji nag li Alaaji wax mooy li xëy mooy dangay wax lu la neex ci ko la neex moo tax réew mi yëpp jaxasoo te yàlla def également bu njëkk ñun suñ jamono benn rajo muy RTS nga mën ko canaliser mën a contrôler programme yi di ko waaye fi mu nekk rajo yi pro dafa bari dafa mel ne lu taw rajo yu bari télévision yu bari micro yu bari te micro bu ne am ko ko téye te léegi nga téye micro xamoo li nga téye mooy lan parce que micro boo ci yàggul rek nga koy xep waaye ñu ngi ciy yàgg parce que man 1968 bi ñu inauguré RTS Kaolack maa nga taxaw man je suis enseignant producteur extérieur là je ne suis pas un la rajo mais nag yàlla def ma dugg ci bu si waaye nag bi ma nekk acteur dama daan jàngale bu tëj sama classe dem rajo waaw bi ma retraité rajo kon daal man je suis producteur extérieur la di sant bu baax 68 68 ba léegi mu ngi sant bu baax waaw témoignage mooy li xew ñan ñoo ko seqoon ak ban jamono waaw jamono jooju tubaab ba fi nekkoon fab seen jikko dugal ñu ci ba daanaka kenn xamante ñu waaw moom ñaar ñu ñu day bokk jamono d'accord bokkuñu diine waaye ñu bokk jamono te bu ngeen bokkee jamono lu bari dañ koy bokk ñoom ñu bokk seen ngor bokk seen nangu dëgg bokk seen xam ne même bu dul xam ne yàlla am na te ku ne da ngay sàmm sa ëllëg ndax dañ koy nettali jamono muy seede ñu bari ñu mu yoon seede ndax boo gisee dëgg ne lii mooy dëgg kooku dangay gëm yàlla am fit ndax ñu bari dañuy gis dëgg du ko nangu ndax intérêt waaye boo ci utul intérêt day wax dëgg rek ndax yàlla bul yokk bul wàññi lii laa gis lii laa fekke loo fekkul nga maandu ci waaw jikko boroom day ànd ak moom xam-xam dañu di daje waaw xam jikko jikko da ngay da ngay ànd moom xam-xam da ngay mooy fii da ngay gis professeur gis maçon gis électricien gis menuisier kooku jikko la waaye koo nekk métier ba nga nekk la nga juddoo nga fay nekkee muy policier bi am na policier xam ne jikko yu rafet lañ ak jikko yu bon fépp waaw pour wax jikko yu rafet am na jamono yooyu benn policier bu nangu ne dafa dem ci benn sëriñ ne ko man de sëriñ dama dafa am lu ma seetlu mu ne ko la mu ne daal sama doom yu ndaw yi dañu xiiboon ñu mag ñi gën a dëgër sëriñ bi ne ko waaw yaa nga police moo ne ko waaw mooy foo jëkkee moo ko man ci bureau yi laa nekkoon léegi nag moo ko maa ngi ci circulation mu ne ah, di nga doom yi juddoon ba nga nekkee bureau dañuy wér parce que boobu sa soldo ngay moon waaye bi nga nekk ci mbet mi di jël deux cent francs chauffeur yi kooku riba la koo ci dundal moo tax sa doomi ndaw yi di feebar parce que riba ngeen di dundal waaw kon boobu métier bu nekk dafa am lu mu laaj waaw jikko nag daje bi daje jikko moo tax ñu koy daje waaw ku gëmoon yàlla ne maa gis lii maa xam lii yokkul wàññiwul loolu wala bës bi ñëw boo ko ne ma ne waaye waaw seede bu rafet kooku ci jikko la waaw jikko ju rafet moo tax ñu koy màggal fii bu bu xewee day mel ne day mel ne màggal ñëppay ñëw jikko ju rafet la jikko yow moo tax ñu daje fii ñeme dëgg ragal yàlla xam ne ëllëg fokk ñu nettali ko te li gën a bon nga day sa nawle fu ñu waxee nga sëgg yaa tooñoon yaa fi waxoon ngay okk suuf kooku ne woon na ko moytu waaw maa gis lii maa fekke lii amul ngaañ waaye fekke pare doo ko nangu mooy li wax mooy wax loolu neex ci ku la neex loolu jikko bu rafet kon jikko bu rafet daal moo tax ñu daje fi xale yi waaye xale yi fexe leen rafetal jikko yi Sénégal gi nit ñu baax a fi nekk nit ñu ragal yàlla ni ñu gëm yàlla ñoo ñooñu fi nekk xale yi bu leen soppi jamono bu leen soppeeku xale yi bu leen soppeeku soppi réew mi la ngeen fekkoon bàyyi leen ko fi kilifa yi dañu kàddu waaw nga am lu même boo dee xale am nga wala rus loola joom parce que boo màggee ëllëg jikko jooju nga yóbbaale kon daal li daje bi daal moo jëkk ju rafet daal moo tax ñu daje bi ñaan yàlla nañu roy xale yi roy leen ci mag ñi waaw bul wax loo neex ci ku la neex waxal la nga xam yem ci waxal bu ne ah lii de wax xaw ma ci dara nga ràññee ñett lii maa moom lii dañ ko bokk lii sama nekku ci boo ràññee loo rek foo dem doo sonn dana def jàmm ma gërëm ko laajo ak ñi ma àndal mooy Assane Niang ñoom ba dañu ànd at mu ne dañuy ñëw fii set juin bu ne dañuy ñëw jikko ju rafet la ñu màggal rafet bëgg xale yi bàyyi xel bii témoignage fu waay nekk ci ëllëg lu li nga gis nangul bul bul yokk bul wàññi li gën a bon kay wax loo xamul kooku kooku gàcce la kon moom kii dafa wax lu mu xam lu mu gis moo tax itam wéy wi day dem rek xale daal bu ñu fàtte daje bi 7 juin bi mooy jikko ju rafet la ñu màggal moo ñu fi day yàlla nañu fekk ay